di leen balo ak di leen balaq di leen xamal li waral woote bi mooy lépp ndigal rekk la ndax ñu ndigal moo ñu indi fii ñu ñi ñëpp kenn ku ci nekk ndigal moo la indi fii moo tax nga ñëw fii nekk ab conseil bokk ci commune bi ñuy woote war laa woo suñ amee ndigal loo xam ne dañ ko war a wax ñu wax leen ko Nak mu am ben lo xamne ne dafa xew ci rew mi muy muy au conseil territorial bi manam ni diko ko wax au conseil collectivité locale bi ñu gën ko xam ci lolu yalla dogal président de la république signé ben décret ajuma ci ngor ne commune yépp yo xamné ne ci Sénégal ak conseil départemental yi ñom ñoo loolu seen ab liggéeya ndax conseil yi nga xam ne ay éli ñooñu ñooy dañ koy wate waaye ñooñu ñooy électeurs yi nga xam ne ñooy wate maanaam loolu haut conseil bi ñu jël nag séddale Sénégal ay département yi fi nekk département bu nekk maanaam ñu jox la ñu séddale ko département bu nekk am ñetti nit yoo xam ne ni war nañoo bokk ci boo conseil boobu téeméeri nit ak juróom fukk la juróom ñett fukk bi la jox département yi juróom ñaar fukk bi ab quota boo xam ne ci décision président de la république lañ koy moo ciy dox bi ñu séddalee nag loolu département Mbacké am ci ñetti nit bi département bi toogee ne ñetti nit yi dañuy jox kenn fukki commune yi nekk ci àll bi ak juróom mbenn fukk commune ak djuroom dañ ci leen di jox ben mbacké commune muy maire bi ak conseil départemental bi dañ leen di jox kenn Touba ñu jox ko kenn mu lolu moy ñetti candidat yi nga xam ño wara war génn ci département mbacké département mbacké nak ili ili yi nga xam ño fi nek ci ñepp nga xam ay conseil lañ ci fukki infrastructure yi fi nek ak djuroom ñaar muy fukki mairie ak juróom-benn ak conseil départemental muy fukk ak juróom-ñaar yi fi nekk ci département Mbacké boo boolee mbooleem conseil yi fi nekk mi ngi nekk juróom-ñetti téeméeri conseil ak fanweer ak ñeent loolu mooy conseil yi nga xam ne ñoo nekk ci département Mbacké ñooñu nag ñooy électeurs yi nga xam ne ñooy watee pour ñetti nit yi nga xam ne ñoo war a dem ca sees boobee ñooñu ñoo fay dem ñoo koy wate bu ñu watee ñooy wateel candidat yooyu looloo tax nag Touba ku tudd département Mbacké mu am lu mag a mag lu mu ci suyee parce que mooy commune bi fi ëpp bu dul bu duloon dara it mooy commune bi nga xam ne moo ëpp ci département Mbacké kon am na cër looloo tax ñu cërale ko benn conseiller moom rek farale ko ñaareel bi sëriñ bi ak war may dëkk bi war may sëriñ bi nga xam ne maanaam lépp buñ ne nangam dana xew ci dëkk yëpp Touba danañ ko jox war ma spécial joo xam ne faw ñu beral ko ko que loolu la mérito ñaareel bi sëriñ bi lépp lu ñu tudd ci département bi maanaam baatam dañ ciy déglu baatam dañ ciy parawaar ab cëram loolu moo tax ñu ne benn conseil bi nañu ko farale commune Touba ci biir trent 834 conseils yooyu nga xam ne ay élus ci département Mbacké nag ñoom ñooy électeurs yi koy watee candidat conseil bu nekk am nga droit ne la ci ñooñu conseil bu nekk am na droit ne candidat la looloo tax nag te commune bu nekk dañoo maire maire ba dana woote war a informer conseiller ba loolu ñu xam ne nii la demee xam ne conseil bu nekk dangaa war a wate ji la 4 septembre ci préfecture Mbacké maanaam da ngaa war a jóg dem wate ji parce que cent 800 834 yu électeurs yooyu conseil rek la loolu foofu rek ñu di leen fi ñaan képp koo xam ne dañ laa élire fii ci commune Touba nga nekk fi di ab conseiller nga xam ne droit la obligatoire la ci yow nga dem wate ji li ci des am na am na lu ci jóg Serigne Cheikh Bara Matiley mi ngi fii ñoo ngi koy nuyu di nuyu njabootam Sëriñ Tuubaa gi fi nekk yëpp. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. deltu ginnaaw gi mooy fii ñu toog tey ay at walla ay weer ca ginnaaw am na lu ñu fi bëgg na def loo xam ni senegal gépp a ko bokk war ma ja tax nag amul fii war ma jooju dafa jóge bu mukk mooy benn commune Touba bii ngay dem doo fekk ay soxna nekk ca ginnaaw góor ñi bokk ñoom conseil foofu dina am lu ma ci leeral tuuti loo xam ni kàttanug sëriñ tubaa ak baatu sëriñ Touba loolu moo nuy suturaal nit di ci dund te te te yàlla ci yàgg dund. kere bi nga xamee ne ñi koy saytu ñëw nañ fekk ma sama kër wax ni dañoo bëgg conseil moom ñu jël leen waaye bu ñuy seese buñ buñ buñ toog. man leen aw ma tontu ci loolu dañu dem ba ci sëñ ba bañ dikkee ñu ngi fa kër sëñ bi kër sëñ Tuubaa ñoom ba ñu wax ba noppi sëñ bi ne leen saa bakkan bi fekk mi ngi dem ko ñëw loolu du fi am. daane leen ndax jumaay Tuubaa ji dangeen ngeen gis góor ñi jigéen ci biir sàpp si ñu ko déedéet mu ne ko lool noonu loolu la ñuy dox te moom moom moo nekk fi noonu. kon Tuubaa. war ma jeeg li fi am lépp Sëriñ moom moom lañ koy delloo ndigal du oyof ndigal du diis ci këm jëm mooy diis mooy oyof kon sëñ Abdoulaat wax na ko ci biir waxam day mel ni wax na li war a wax ci kàddoom lim jiite wax na ko waaye lay dëgg dëgg dëgg mbir mi mooy baatum ndigal bi nga xam ne waxtu wu jógee ñun ñëpp nu war caa gis suñu bopp gis suñu bopp mooy la suñ maam yi daa def suñ bàyyi di ko def ba mu agsi fii ci noonu bu baax itam ndigal jikkee ñu jëfe ko ndax amuñu lenn lu gën ndigal ndigal it ci lañuy ñuy mën a amee war may dëkk bi mu wuuteeg yeneen ñim bokkal li ñuy wut muy commune bi wuteeg yeneen commune baat bi rek la moo leen wuute bis bu ñu demee ba baatum ndigal boobu jeex fi nañ xam ni ñàkk nañ lépp te amuñu kuru Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa moom mu ñu amee nag fii ma toog bu fekkante du baatu ndigal du fi toog ndax ci yoon aw ma sañ-sañu toog fi waaye ndigalam fii ma toog fi ndax bokk bu ci conseil waaye nag kii yilif conseil yi te kenn ku nekk ci yéen amu ci kenn koo xam ni baatama ko fal wala dara jaam wala maqaamam kilifaa ko fal kilifa koo ci sëñ bi la tàmbali sëñ bi ne ko defal seeta loo def mu def ko kon moo nu dellusiwaat fii tey Cheikh Bass waroon fee toog wax lii may wax donte matuma place boobu kon sëriñ bi nee na sëriñ Sidi mii la jël bokkoo ko boolewaat seen kanam bokk ci liggéey boobu ngir mën a teew foofa loolu la sëñ bi ñu waxoon ni naa leen ko wax noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu sama bokki bopp yi nag ndax al aqrabu awla tàmbalee ko ci seex bi mi sëñ Sidi ak sëriñ Sidi ba tey ak ñee mboolem mbàkk mbàkkee fi nag ak mboolem seex sëñ Tuubaa fi nekk ak mboolem ñu leen toppan ñoo ngi sant ñëpp di ñaan fii ngeen toog barabu ñaanukaay la ndax kenn ku fi jógee ci kër kilifa nga jóge ngeen ñaan nawet bii ñu nekk saam def ci tawféex yàlla def jàmm ci réew mi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wóotu ci teg benn baat ndax doy na sëg képp ku ñuy gis di gis sëñ bi sax boo waxee ne sëñ bi nee war si na ko mën a gën sa normal te ñun amuñu bëgg amuñu lu ñuy am bañ ne bi nee na décidé na boobu